waaw euh, soxna ñu ngi ñu ngi fii ci euh, parkingu stade de l'amitié ñu fekk la fi ban heure fi ñëw. Euh, man nag dëgg dëgg fi yàlla yegguma fi fee laa njëkkoon Liberté 6 laa njëkkoon a ñëw après ma door a ñëw fii dëgg fi yàlla yegguma fii. Liberté 6 damaa daggoon foofu ticket si beneen bus après bus bi mujjewul ñëw ñu delloo ñu suñu xaalis après ñu door a ñëw Euh, yaa ngi nga ñëw fi ci stade bi yaakaar ngeen ni di ngeen euh, yow foo jëm sax man Bignona laa dem Bignona euh, bi bii de nee na Ziguinchor la dem xam nga oto bii dem Ziguinchor tamit arrangé na ma pour man mii di dem Bignona moo tax ma si dugg. paas yi fu mu toll. paas bi mu ngi 15000. 15000 francs 15000 francs ñaata la woon. paas bi 7000 la woon. c'est du simple au double. ah. maanaam dañuy doubler paas yi. instant bi moom waxuma doubler de xam naa ne dañ ko tripler. parce que bu njëkk bi moom boo boo taxawee si route nationale bi même 5000 di nga dem Casamance mais instant bi ñu ngi fay 15000 cette place 25000. boole aussi seen i bagages. waaw boo fi ñëwee boo faylee 3000 4000 doo dem xam nga loolu dafa métti ci Sénégal. voilà bateau bi dawul Séné suñu Sénégal dem dig ligne Ziguinchor bi dawul avion bi dawul looloo tax xam naa ne ñii tamit di profité waale di yokkaale ni seen paas bi parce que paas bi mosul egg 15000. dix mille la woon bu dee événement dix mille lañ ko doon def léegi jékki-jékki rek ñoo quinze mille parce que xam nañ déjà bato demul man moom sax Sénégal dem dégg laa doon jël ma voyager boo gisee ma ñëw fii xam nga loolu dafa bloqué moo tax loolu tamit beneen affaire la. ngi fii ci euh, Patte d'Oie fekk fii euh, ay clients yu bëgg a dem euh, tabak tabaski ci ci seen njaboot ñu nekk kenn ki nekk si ñoom di dund ay xat-xat ñu amoon kenn koo xam ni fekk nañ ko fi ci garage bi mu wax ñu yan xat-xat la fiy dund. xat bi daal du boo xamal dafa métti te et puis yi dañ yokk paas yi quoi. paas yi ñaata la woon. dix mille franc ah, ah, cinq mille woon. def ko dix mille. ñu def ko dix mille moom lañ def coono bu métti moom léegi ñoom ñu ngi ñëw wax na la oto bi yaa ñëw te oto bi ñëwul léegi nag client yi ñu ngi taxaw fii di xaar. man Koungheul laa jëm. waaw Koungheul nga ni paas bi 5000 la woon léegi dañ ko doublé def ko 10 000. dañ ko def ba 8 000 8 000 ba 10 000 moom am na man 10 000 laa dagg sama ticket baa ngi nii. man ñëw naa fi depuis huit heures et demi laa fi ñëw. man maa ngi fi depuis sept heures. sept heures ba onze heures ba euh, instant bi ne midi sax aw ma aw ma gu kaar parce que euh, bëgg naa dagg billet tamit ñu ne ma naaxaar naaxaar rek lañ may wax. ba cinq heures bis ou bien six. ba xaw ma ma ndax dinaa dem wala du ma dem. yow fan jëm ni euh, Fouta laa jëm. Fouta nga jëm waaw. ticket bi ñaata la. ticket bi paas bi. paas bi douze mais. dafa nekkul normal quoi. ñaata la woon parce que euh, bu njëkk 10 000 la woon ba tey ticket bi mu ngi exigé 10 000 lool lañ si bind mais 12 000 ngay fay. Ah, lu waral loolu. événement bi la saa événement ñëwee ñu yokk paas yi et puis loolu dafa jaarul yoon quoi. Euh, fan nga jëm. maa ngi Ziguinchor laa jëm ni Ziguinchor am nga bus. am naa bus waaw. Euh, ticket bi. ticket bi à 15000 francs waaw 15000 francs c'est trop cher hein à partir de Ziguinchor war naa dem bu Goudomp. il faut payer encore euh, voilà 1000 francs à 2000 francs de plus encore c'est c'est trop cher trop difficile. mais ticket bi avant avant avant jour de jour fête nii ñaata la nekk. bon 8000 euh, maximum 9000 francs et puis difficulté bu ñu gën a rencontré tey dama feeyoon depuis le samedi en ligne ben euh, bus buy dem euh, Ziguinchor on était là-bas depuis 4 heures du matin bus bi ñëw ba premier bus bi fees ñu encaissé beneen bus bi ba ñëpp joxe seen quitté parce qu'il n'y avait pas de bus. fan la woon. c'était à Liberté 6 rond-point Liberté 6. mais est-ce que xam ngeen pourquoi bus amul. pourquoi bus amul bon pourquoi amul euh, bon certainement c'est à cause de deux causes principales. c'est-à-dire euh, l'interdiction de la circulation du bateau avant c'est le bateau qui amenait la majeure partie des populations. ils ont interdit paraît-il qu'ils ont interdit bon excusez-moi <laughs> bateau bi moo doon yóbbu nit ñi Ziguinchor avant léegi dañ ko tere. bu tere teree bi il paraît que euh, même Dakar Dem Dikk dematul aussi du coup les gens. avion avion aussi avion amul. les gens font la ruée nit ñi dañuy daw léegi dem si bus yi bus da ngay def réservation ñun tous def nañ réservation euh, joxe suñ xaalis on était obligé de riposter pour que ñu rembourser suñu xaalis ñu mujj a ñëw fii pour am bi ba léegi il est midi moins quitté guñu. kaar euh, yi. waaw. xam ne nee nañ depuis loolu. loolu yoon bi moo xat oto yi demoon dem bi si guddi oto dëgg lu baax li ma la oto yi bi digoon dem si dem dañ leen fanaan loo mais ci àll bi gendarmerie ñoo leen baare ñu leen fanaan loo njongoloor foofu la ñu fanaan oto yi foofu la ñu fanaan ñu waroon ñëw foofu la ñu fanaan ñu waroon dem ma dem ma dem moo fanaan loolu moo waral client yi nii daa fi bëri nii quoi loolu rek la loolu moo tax donc oto yi oto yi seeguñu bon beneen bi tam mooy euh, ci ci wàllu prix bi gars yi dañuy wax ni euh, c'est du simple au double maanaam euh, ku doon paas 5000 léegi ay 15000 mille ngay paas lu waral loolu. xam lu waral loolu ndax oto yi bu ñuy dem dañuy yeb dem frais frais ba àgg boo ñëw doo yeb dara boo ñëw da nga yor dawal da dawal daa dawal na xottu oto ak bu cher bi. te te loolu tam ñoom ñi ñoom tukki ñoo koy gàddu. ah ñoo ko war gàddu ah, ah mais mais loolu nag ngay def mais yow doo dawal mu ci perte booy dem danga ngay yeb mais booy ñëw doo yeb dara. kon ah, pertement bi ñoom ñoom client yi ñoo ko. ah, ah non non loolu ñoom ñoo si biir rek. ñu ngi fay. yow yaa ngi fi maa ngi fi nga jëm ni man damay dem Casamance julli ji. Ah, ak sa njaboot ngay. waaw ak sama njaboot laay dem. ak paas bi fu mu toll. paas bi cher na trop parce que bu ma daan dem Casamance à chaque fois 7000 francs laay paas dem Casamance ba dem dem jël horaire bi dem ba suñu dëkk ma wàcc. mais pour le moment passe bi 15000 francs la xar bi 10000 francs nga koy fayal déjà taxe bi rek pour mu jëlee la fi nga jógee ba fii 5000 francs c'est pas ah, ne aussi valise dañuy fay. valise bi tam déjà waa ñëwagul xar bi 10000 imaginer man 15000 xar bi 10000 valise bi ñëwagul saako soble bi ñëwagul euh, pomme de terre bi ñëwagul loolu yëpp da nga koy fay dina la coûter ay 35000 ci dem tabaski kese. c'est pas normal état li mu naan dama leen di jàppale dama leen di jàppale boo jàppale dangay ngay jàppale bàyyi ba événement jot nga dimbali nit ñi. foofu la ko nit ñi soxlaa askan bi fa la soxlaa événement fa la soxlaa soo duggee marché sa àddina yàqu luy jar 5000 ñu ne la 10 000 luy jar 10 000 ñu ne la 20 000 c'est pas normal état bi day seetaan boo jógee dañuy dinañ leen jàppale dinañ leen jàppale mais man gisuma jàppale bi dimbal bi gisuma ko xañ na am na fu mu féetoo bu dimbal bi nag moom ku ma am nday ak ku amul nday la ñu gisuñu ko bu ñuy dem voyage dañuy sonn chaque événement nii la ñuy def dañuy sonn boo waree dem rek da nga koy xalaat metti na trop Sénégal metti na trop fu mu ne nii yuuxu ne joppeet ñaanal yàlla nag président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla sàmm may ko jàmm may jàmm njabootam may Sénégal jàmm. vrai vraiment métti na trop da ngay dem ba da ngay découragé sax tey bu ñu yombaloon paas bi tey événement bu jotee kenn ku nekk nit bu nekk nga paas sax au moins que 6 000 6 000 6 000 xar sax 5 000 sax mooy mais vraiment métti na trop lu ñu war a mën a wax Sénégal loo mën a dimbali nit ki te dimbaliwu ko ci événement dimbaliwu ko ci dara. sum sëñ bi yow ñu ngi la fekk fii ci euh, Parcelles Assainies Euh, nga ñëw wut si oto fan nga jëm ni moom maa jëm boor xombal fa nga bëgg a tabaski incha allah taala waaw si njaboot waaw mais paas yi cher na de moom gaa yi yokk nan lool paas yi paas yi la paas yi fi mu toll ñu ngi fay ñu ñi la ñu fi mu toll moom quatre woon boo daan ne xombal mille franc ngay fay wala mille cinq cent ba 4000 waaw waaw ñoom seer na lool fii sax moo tax ne mooy bu doon buntu Pikine ay 5000 lan lay wax ak 6000. fii ak xombal gii rek. waaw fii ak xombal moom bu dee buntu Pikine lay wax 5000 fii nag xëy na ni mu nekk kër Sëñ Mourtala moo tax gars yi waa ñu paas yi nii sax sax waaw moom fii ne moom paas taw feex na tuuti rek mais par rapport ak ci ginnaaw daal. waaw mais jafe-jafe oto yi moom fii yëpp boo génnee paas yi moom day gën a seer waaw. paas bi nekkul seulement yow si jëmm waaye tam say say bagage yi nga war a yóbbaale njaboot gi tam da dañuy paas. waaw man nag fi mu toll nii man ban parents yi su may voyage ma yor bagage yu bëri ndax loolu laay waaw waaye am na yoo xam ne ñi yore bagage bi yëpp moom la ñuy fayako seen bagage yi moom bagage téeméer wala 1000 francs. ñu fii ci euh, Patte d'Oie wala boog euh, fii ci euh, nga nga nga nga yore say xasida di di di nafar war a jëm fan. war a dem Kaolack. njaboot incha allah seeti njaboot gi ndax yàgg naa fi ak xat-xatu dëkk bi looloo gën a tax sax ma gën fee yàgg mais bu doon sama soow ñibbi naa bu yàgg tey jii maa ngi ñëw gis bi billet bi c'était à 2000 francs ñu dem ba si biir def 2500 mais tey ñu ngi jëndee billet ay 4000 francs nga war a dem yow ak sa soxna day metti mille francs nga war ko génnee xama nga waaw metti na trop daal. waaw métti na métti na. donc paas yi euh, dañuy dañ ko doublé waaw. mais te waxuñu leen lu tax. waxuñu dara lu tax dañoo ñëw rek parce que boo bëggee dem faaw nga paas situation oblige dañoo ñëw rek dagg ticket ñun non c'est à 4000 francs tey 4000 la. te ñëw nañ ba pare ak suñuy bagage il foog ñu obligé dañuy jënd billet parce que dañoo bëgg a dem jóge ji njaboot gi. waaw noonu la demee bàq si. da ngeen ñëw ak seen i bagages bagage itam dañoo dagg billet. dañoo dagg billet. léegi loolu waaw lépp lépp mi ngi ma dikkee maanaam booy xool mi ma dikkee neuf mille cinq cent parce que bagage bi mille cinq laa ko daggal waaw saag yi dama ko dagg dagg billet yi te métti na neuf mille cinq cent presque dix mille ak sama passe muy jóge golf di ñëw fii nii maanaam dix mille franc daal. état daf ñu war a jàppale bu ñu bayee ñun ak chauffeur kese kese kese ya amul encadrement prix bu ñu neex la ñuy fixé parce que les gens profitent de ces trucs là pour doubler les prix tout ba ma ñëwee les bagages treize mille franc la ñu wax ñetti yu ndaw treize mille franc te jotewul dara ak sa transport bopp yow. transport ku ne 15000 la fay on te demande de payer 13000 francs dañoo waxaale waxaale waxaale ba ñu soog a wàññi wàññi. difficile on est laissé à nous-mêmes l' état prochaine fois doit encadrer les gens en quoi faisant tous les moyens qui sont à leur disposition ñoom bis état bu am fii dañu war a convoyer nit ñi bay bateau bi bay avion yi bay transport état ba pare encadré jege nit ñi wax nit ñi prix tel ba fi warul passé tel. je vous donne un dernier exemple une voiture qui nous a amené tout à Yango quand on le chauffeur nous a dit ba ngeen eggee di fay mais depuis hier maa ngi jël Yango j'ai pas payé francs pour le transport l'État peut faire ça encadrer les gens gens demander au chauffeur de ne pas passer un tel prix sinon nit ñi ay góorgóorlu ne nit ñi dañu war a dem jëndi soble am ne amuñu xar léegi bu ñu eggee comment on va comment on va faire les gens n'ont même pas de mouton ils n'ont pas d'oignon ils n'ont rien on demande nous sommes laissés à nous-mêmes hein c'est c'est difficile. justement ñoom ñoom autorités yi euh, lan ngay xaar ci ñoom justement loolu. parce que euh, ñi autorités yi ñoom ñoo am li ñuy wax régulation ñoom ñoo war a am mën a taxaw ñun citoyens yi ba nga xam te ni euh, képp ku seq ñun ci si yoon ko koy teg parce que transport. du transporteur bi du chauffeur bi ñoo war a def prix yi mais autorité bi ci boppam moo war a def prix yi léegi autorité yi bu ñu toog di seetaan. ba ba léegi transporteurs yi wala boog chauffeurs yi ñooy def prix donc lootul dootul dootul état. waaw parce que ñoom itam yëguñu loolu. yëg nañ ko. yëguñu ko duñ ko mën a yëg xamul tax duñ ko mën a yëg parce que li naan ñaq baadoolo mooy cere buur noonu la demee ñoom duñ ko mën a yëg parce que ñu ngi seen clim toog yor seen oto bu confortable fu ñu bëgg a dem dañuy jóg rek dem. waaw ñoom dañuy dugg ci bus yi moo tax. duñ fi dugg moom mënuñ ko yëg seen doom duñ ci dugg duñ ko mën a yëg noonu la demee. yow ban message nga leen di lancer ñoom yi. daal benn message laa leen di lancer xam nga muy lan ñu jàppale askan bi te xam ne fi mu toll nii métti na métti na métti na lool ay ndaw lañ itam te bëgg nañ liggéey bëgg nañ jàpp ci dara bëgg nañ dox ci beneen mission boo xam ne maam moo gën ñu nekk nii daal parce que dañoo yor yi jaboot ñoom ñu yëg loolu ñun mais ñun ñu ngi koy dundu métti na trop li ma leen di lancer mooy ñu jàppale askan bi jàppale ñu xam nga taxawuñu itam waaw. mais tam beneen bi tam mooy est-ce que chauffeur bi ak transporteur yi est-ce que itam waruñu def lu lew lu ñuy wane mën a liggéey tam yóbbu bu seen njaboot tam parce que ñëw tey rek ñu la paas bi doublé na tam vraiment. waaw ñoom seen intérêt la ñuy xool. mais bu lew quand même. mais fi mu toll nii xool lu lew gars yi xoolatuñ ko xoolatuñ lu lew fi mu toll nii ñoom na seen poste duuf rek seen biir fees loolu la ñuy xool fi mu toll nii dañoo toll jamono axiru zaman fa lañ toll kenn xoolatul lu baax kenn xoolatul lu bon. wóor na suñu tubaab ñoom na nu ñu mën a def maanaam ba am seen bonheur rek la ñuy xool xoolatuñ lu lew yooyu. ñu lay fay. yow yaa ngi fi ci stade maa ngi fi fan jëm ni man damay dem Casamance julli ji. Ah, ak sa njaboot ngay waaw ak sama njaboot laay dem. ak paas bi fu mu toll. paas bi cher na trop parce que bu ma daan dem Casamance à chaque fois 7000 francs laay paas dem Casamance ba dem dem jël horaire bi dem ba suñu dëkk ma wàcc mais pour le moment paas bi 15000 francs la. xar bi 10 mille francs nga koy fayal déjà taxe bi rek pour mu jëlee la fi nga jógee ba fii 5000 francs c'est pas normal. aussi ñu ne aussi valise dañuy fay. valise bi tam déjà waa ñëwagul xar bi 10 000 imaginer man 15000 xar bi 10 000 valise bi ñëwagul saako soble bi ñëwagul euh, pomme de terre bi ñëwagul loolu yëpp da nga koy fay dina la coûter ay 35000 ci dem tabaski kese. c' est pas normal état li mu naan dama leen di jàppale dama leen di jàppale booy jàppale da ngay jàppale baay ba événement jot nga dimbali nit ñi. foofu la ko nit ñi soxlaa askan bi fa la soxlaa événement fa la soxlaa soo duggee marché sa àddina yàqu luy jar 5000 ñu ne la 10 000 luy jar 10 000 ñu ne la 20 000 c'est pas normal état bi day seetaan boo jógee dañuy dinañ leen jàppale dinañ leen jàppale mais man gisuma jàppale bi dimbal bi gisuma ko xañ na am na fu mu féetoo bu dee dimbal bi nag moom kumba am nday ak kumba amul nday la ñu gisuñu ko bu ñuy dem voyage dañuy sonn chaque événement nii la ñuy def dañuy sonn boo waree dem rek danga koy xalaat metti na trop Sénégal metti na trop fu mu ne nii yuuxu na joppeet ñaanal yàlla nag président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla sàmm may ko jàmm may jàmm njabootam may Sénégal jàmm. vrai vraiment métti na trop da ngay dem ba da ngay découragé sax tey bu ñu yombaloon paas bi tey événement bu jotee kenn ku nekk nit bu nekk nga paas sax au moins que 6 000 6 000 6 000 xar sax 5 000 sax mooy tane. mais vraiment métti na trop lu ñu war a mën a wax Sénégal loo mun a dimbali nit ki te dimbaliwu ko ci événement dimbaliwu ko ci dara. soo duggee ci marché bi sa yàq yàqu muy korité muy tabaski muy 31 décembre événement dañuy yokk ba yëkkal lu daan jël téeméer boo demee ñu ne la 3500 fan lañ ko teg ana état ana liggéeyam ana contrôle yi ah buñ jógee ñoo ngi dimbali nit ñi ñoo ngi dimbali nit ñi anam kan la ñuy dimbali wala moom ñu am la ñuy jox wala ñu ñàkk ñu bàyyi la ñu gën a sonn loolu dafa metti vraiment dëkk bi metti na trop soo ko xalaatee tey génn Sénégal rek moo la gënal nekk Gambie sax a gën ñu nekk fii vraiment dafa metti yeneen. fii de moom wax président Macky Sall ndax instant bi moom la ñu denc réew mi ak suñu député yi bu ñu voté xam nga ñun Casamance dañoo am suñu député ñu bu ñu voté bi nga xamante ne ñun normalement bu ñu amee problème ñoo nar a ñëw taxaw taxaw ñu ndax looloo tax ñu fàll leen sànni nañu suñu kart ba pare instant bi gisuñu kenn ku nekk yaa ngi doog sa bureau climatisé di xaar élection bu ñëwee tamit ñu ñëwaat encore. avec les mêmes discours ñi ñii di leen voté ba pare lu waral ñu voté leen ba pare du leen gis xam nga loolu dafa metti Macky Sall nag war na def tout ubbi bato bi bàyyi Sénégal dem di mu dem ndax ñun dañoo sonn yoon bi dafa metti que tam am na loo xam te mën nga ko ñaan autorité yi pour que ñu teg ci yoon pour dëkk bi yoon ndox fi mais autorité foo leen ko waxee itam am na yu bëri ñoom loolu ñoom duñ ko mën a régler parce que dañuy wax rek mais bi buñ ko waxee itam gaa yi duñ dégg seen wax loolu la oto yi di leen wax mais bu ñu waxee ñoom gars yi duñ ko topp. maanaam kon ñoom transporteurs yi li li état bi di wax wala ba nguur gi li muy wax ak euh, autorité administrative li ñuy wax ñoom faale wuñ leen. déedéet ñoom toppuñ seen wax sax parce que bu fekkoon ñoom dañu ñëw taxaw toog ak ak gars yi ñu leen contrôler loolu bu boobaa dinañ ko mën a régler mais ñoom dañuy toog fi ñu toog wax wax gars yi dinañ ko dégg mais duñ ko def waaw.